je te donne cinq minutes. kii nekk ci entreprise bi na génn na génn sama entreprise. et yow laay waxal dama bëgg nga fàttali maa ngi ci kër gi. loolu ngay wax yëpp lijjantiw ma ko xaw ma ci dara lijjantiw ma loolu yëpp taluma ku ma rey taluma ku ma dugal kaso yaa ngi may dégg. da ko sal kan moo lay rey. loolu yëpp lijjantiw ko boo bëggee sama jàmm yaram fii ci kër gi xoolee ma bëtu bon bi ma ñëpp di xoolee te nga bàyyi ma baat ka mu ñëw nga ne bu mu egsi xam nga kii di nekk di visite sama entreprise bi mooy kan mooy Malal Faye may pétrole kii mooy surprise bi xam nga ne kii lu ma dal Sénégal gi kii moo ma ko yóbbee kii moo ma naawtal ma génn dëkk bi ngir mu mën a sàcc sama alalu baay sama baay ba tey kenn miraasu ko kii moo jëf loolu kii moo ma génn dëkk bi sëkk ak sama jabar ba ma sib leen àdduna ak àllaaxira nga gàddul ma mbalit boobu indil ma ko sama entreprise bi muy jël alalam te ko rax sama alal jamais. jàppal ne du ma jàppale sa noonu bu jàppale day am yow laay jàppale. kon xamoon nga ne sama frère la non xam nga ko. sax waxoo ma turam te ma parler de surprise ay jën bu mu napp jënu danga dooleel. lii occasion la ci ñun. ñu mën a jël suñu revanche pour mu am nag faaw nga bàyyi mu signé contrat bi fais-moi confiance. jigéen mës na ma wax loolu. jigéen du ci <laughs> sa bopp nga xam rek d'accord. li nga ma waxoon ci moom nag gis naa ko. bëgg na jigéen bari na tiital dinaa la may loolu parce que bu ma réeree moom li ma bëgg lijjanti duma ko lijjanti dinaa ko gasal kàmb watal ko mais boo fexee ba mu signé contrat boobu bu mu la tegaat bët yow na keneen porté dossier bi walla ngeen sekk transaction j'espère que li ma bëgg di ngeen ma ko defal parce que man dañ maa yebal si yéen. dinañ gérer yëpp incha allah. kon baax na bàyyi naa lépp sa loxo. d' accord am léegi fi ngay signé. ngay signé d' accord waaw. alors réservation bi mat na j'ai tout fait léegi man sa morceau mbëggeel bi donc laa bëgg nga defal ma acapella bu toj jour anniversaire bi kontaan naa torop billaay ok merci beaucoup au revoir. bonsoir. bonsoir j'espère que xaar bi yàggul non yàggul en mooy sama copine bi ma la doon wax ah dañ ñëw pour faire réservation bi dîner aux chandelles bu yem nag lañ bëggoon waaw hmm? d'accord man fay lépp lépp kon boo fay réservation bi ñu ma ko gisee waaw <laughs> d'accord am problème mais da ngeen di jël carte waaw da ngeen di jël carte d'accord par carte que vous faites Je suis juste venu vous proposer euh, une collaboration. C'est un peu tard. C'est vrai, je sais que vous êtes euh, actuellement en train de collaborer avec euh, un monstre. Quelqu'un que tout le monde déteste en ce moment, qui a fait beaucoup de mal à des gens et qui risque de de vous mettre dans le trou. Et il s'appelle euh, C'est un mauvais type. Regarde ce que moi je te propose. Nous sommes dans le monde du pétrole. C'est vrai que... Mais est-ce que vous savez qu'ils n'osent même plus aller au Nigeria Non, tout Malal Faye. Malal Faye. Tibiti. Oh. Atia Atia Les gars, ça se voit qu'il qu qu vous a appris des C'est pas grave. Mar, c'est mon ennemi. Et vous êtes son collaborateur. mes ennemis, je les écrase. Et ne n'épargnerai personne. Je pars, mais je vais revenir. Douda non man moom ça ne pas du tout. ah. waaw wuy ma déglu bu baax li ma lay wax gis nga Malal fay lu mu def fexe na ba am ay coordonnées terre d'hiver ba dem fa. et puis. dafa yàq sunu der foofu. Malal Faye. ba pare fi ñu toll nii projet bi ci boppam. moom la bëgg a jël dafa bëgg a yàq suñu projet ñun moom féetewoo ko. écoute xoolal déglu ma déglu ma fii xaw ma nu mu def ba seeti tere dibel ak ku ko fa yóbbu mais dama la ne mënul yàq suñu der man je vais prendre les problème bi nu mu gën a gaawee. man du ma nangu mu yàqal ma sama àdduna démb ma defaraat sama àdduna tey mu bëgg ma ko yàqalaat duma ko nangu. duma ko nangu de. je vais résoudre ce problème dama ne du ma tëdd ci lal te ma problème bii. lenn la wax. waaw d'accord ok. Malal Faye nag yaa ngi door a déclencher la guerre. tricheur bi wax graaw na de. ah bon. Bakka bien que man ak moom suñu diggante actuellement neexul mais malal fay yow yaa ma bett yow li ngay nganda ngandal yow ndekati doo dara yow defoo naa ne gaynde ga ndekati jikkoy bukki nga yore ah da nga naa déclaré la guerre nga demal sa bopp moo nga uti say partenaire bopp mais topp ci samay saw jàmbalaa di ma jéem a suufu ah boo mënee tey nga jaar sa yoon écoute ma moi je te croyais intelligent mais yow maa ngi doog a xam ne xamoo ce que c'est que kon foofu nga juumee gisagoo dara du la may foog yow ñaanu ma la dërëm waaw ici et puis yow ici c'est chez ay chez moi moo tax ma ñëw fi dama ne dégage dama ne wuyu ma dem li may wax di nga ko dégg lii nga def tu viens de dérouler ta bande annonce <laughs> mais le premier tour jàpp na mu ñëw et dis-toi que y tour C'est ce que tu crois. Dégage de chez moi. Génnuma waaye génnuma. Euh, je vais compter jusqu'à dix. Sors chez moi. Ah, je vois que tu t'es trompé de bataille. kii bi affaire guerre arme conventionnelle. guerre bi fii la. sa kër jël. je dis. Out. waaw chauffeur Namba laa def ci dossier bi. ok merci. Absita lu mu bëgg sàcc wax la. Mhm. suñu partenaire bu fi ñëwoon keroog My Pétrole. le PDG de My Pétrole. Mhm. def les yeux <laughs> du dëgg. dem na sax ba jox ma kartam ah. Mhm. léegi. bëri tiitër ngandi ngandalu. Eh, kooku daa coofe de. est-ce que xam nga paye dañoo xam lu baax. loo gis yow. xanaa nga jox ma ci idée. oui ma li ma leen njëkk wax daal mooy bu ko ñàkkal kes loolu sama dil la mën ak yow après daal teg ci côté. waaye naa ko sa loxo de. noo tenkee tegal fii. <laughs> venez, venez. Regardez, ça, c'est la piscine. Bon. Prenez place. Oui, je Voilà. Monsieur Faye. oui. lu tax sa bureau indi ma fii. écoute euh, man fii laa dëkk c'est vrai que c'est un hôtel mais c'est c'est ma propriété maa ko moom. man maa ko moom alors euh, du moment ñoon ñu ngi commencé di jéem a liggéey def partenariat man ak yow j'ai jugé nécessaire nga xam fi ma dëkk ngir ëllëg ak si biir nga xam ne man mënuma laa rëcc fenn c'est juste ça hein du leneen. ah ok kon fii nga dëkk. waaw. ana lan la monsieur Faye dama wax lu garaaw. de man aw aw ma ñun ñaar lañu woon suñu famille man ak sama benn frère ñu bëggante lool lool lool. nekk kenn on se disait tout lenn mosuñoo taqale ñu dem ba jamono mu ne day dem ma topp ci di wax j'ai tout fait amul lu ma deful lu ne def naa ko pour mu bañ a dem malheureusement mu mujj dem quelques années après mu def malaise décédé. yàlla moo ma dese ci moom. gis ngeen koor bi. hey, euh, moi je suis pas n'importe qui. Je suis un pétrolier, je suis puissant. man maan débourser xaalis ñu rapatrier ma corps bi c'est moi qui l'ai enterré parce que nag moo sama deret dama ko bàyyi ci àll bi bon bref excuse-moi nañu nañ non non non sérieux sérieux ñu jublu ci liggéey bi. est-ce que vous savez que vous êtes très beau aujourd'hui. Hmm. ah oui. oui. d'ailleurs d'ailleurs gis naa la keroog ba nga ñëwee bureau moo doon xool. écoute euh, c'est normal. xam nga est un homme kenn du jàkkaarloo une perle comme toi. mais pourquoi pas. ah ben. <laughs> gisoo loolu yow. jàppal ni ki ma am daal xaaj lay def. waaw. Ah te yow ni ma a gisee nii mën naa am ci yow juróom am na lu muy demee sax ma am juróom benn te bu yéexee it bul yàkkamti. ah <laughs> ça je le sais loolu moom mais nag yàkkamti naa ko hein. <laughs> mais dina mu